l'assassinat du sieur Ousmane Sonko, ou sur le sieur Ousmane Sonko. Donc, à la faveur des événements du 16 février, du 16 mars 2023, il a été relayé par beaucoup de médias de la place et sur les médias en ligne le Cheikh Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. À son intégrité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre peut-être une homicide volontaire, une homicide, un homicide involontaire. Par contre, l'assassinat procède d'une préparation, d'un plan et d'un stratagème préalable, préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement. Et donc, vous, crois, vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés en toute responsabilité le procureur de la République près le tribunal de grande instance en place de Dakar s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui auraient été relayées et dont l'opinion, le, le, dans son ensemble, s'émeut, d'autant plus qu'il porte sur aux Sénégalais, citoyens sénégalais du nord de Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'une enquête euh, a été ouverte, confiée par euh, le procureur de la République à la sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu. Bref, au total, poser tout acte d'enquête prompt à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko. Et c'est ainsi que sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait sur les supports de médias en ligne, et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement ou l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne ciblée dans cette vidéo a été identifiée et reconnue au nom de Yargassi. Des recherches entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargassi a été déjà extrait poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'arrêt de Rebus. Et c'est sur ce sang désemparé, les enquêteurs de la surtout urbaine ont procédé à son extraction et à son audition. Il est euh, résulté sous le respect de la présomption d'innocence toujours les droits de la défense sont sacrés chez nous. Et sous le respect du secret de l'instruction, vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête, au risque de paraître comme un procureur général qui délivre un réquisitoire à charge. Donc l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yalgassi et qui serait domicilié à Mbourg et qui serait un employé d'une société qui s'active dans la sécurité et dans la sûreté aéroportuaire. Et de son audition, il est ressorti que le jour des manifestations, il a quitté le département de Mour pour venir à Dakar pour des raisons professionnelles. C'est après ça qu'il a suivi les manifestations, d'où, d'après ses propres déclarations, son leader serait donc euh, pris à partie par les forces de l'ordre. Et il s'est proposé de venir participer à la manifestation. Il les a rejoints, ce sont ses déclarations toujours, au rond-point et s'est fondu dans la garde rapprochée du sire Ousmane Sonko, donc l'ayant à portée de main. Et c'est donc sous ce rapport que dans leur pratique, pour se protéger contre les effluves des grenades lacrymogènes, ils ont l'habitude de se prémunir de bouteilles de vinaigre qu'ils ont tendance à asperger dans des mouchoirs ou en tout cas du tissu pour un tout petit peu euh, amoindrir les effets de, de la respiration, de, de, de, la fumée qui proviendrait des grenades lacrymogènes. Et c'est sous ce rapport qu'en plein dans les, dans les manifestations, une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis, d'après ses déclarations, du vinaigre sur son écharpe aux couleurs verte, jaune, rouge. Mais c'est le lieu de le préciser, jusqu'à présent, il n'a pas été capable, dans la foulée des manifestations, de décliner l'identité de cette personne qui, de toute vraisemblance, le connaît très bien et il, le, et, enfin, il ne s'en est pas rappelé. En tout cas, ils se connaissent très bien. parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate de la voiture de Sonko, Ousmane Sonko, avec ses éléments de sécurité. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appellerait Maïmouna Bousso pour aider toujours cette dernière à se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes. Et donc, un moment, d'après ses déclarations, il a vu, pour le répéter, mon leader, M. Ousmane Sonko, les yeux larmoyants. C'est à cet instant que, pour voler à son secours, il lui a donné l'écharpe main à main et au vu de sa sécurité, M. Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engouffré et retourné dans sa voiture et s'en est servi pour éviter un tout petit peu donc les effets de la fumée des grenades lacrymogènes. Donc c'est ce qui est ressorti de l'audition du Syrien Gassi, je le précise bien, d'après ses déclarations, qui ont été unilatérales. Ensuite, toujours dans le cadre de la progression de l'enquête, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui et dont l'utilisation par le sieur Ousmane Sonko aurait altéré sa santé. le cadre la tentative d'assassinat, je le précise. Et donc, à bio 24, résultat négatif, contenant un euh, quelconque liquide ne leur a été, produite en vue de prélèvement pour identifier la nature du produit contenu dans, cette, dans, cette, dans ce liquide. Après ça, on s'est dit, l'enquête s'est intéressée au corps médical qui a eu à examiner le ciel Ousmane Sonko. Et c'est sous ce rapport que le docteur Cissé, rappelons-le, c'est le médecin qui a eu à procéder à l'évacuation du sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique et qui serait un médecin membre de la commission médicale du parti PASTEF. Ce docteur Sissi a été évacué, a été interrogé, entendu sur des pathologies du sieur Ousmane Sonko et il a été formel en disant que son intervention s'est juste limité à sa demande à prendre le sieur Ousmane de son domicile à la clinique Souma et sur instruction du docteur Niang de l'installer à la suite qui est au deuxième étage. Quid des pathologies dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko, le docteur Sissé, qui a été le premier à être en contact avec le sieur Ousmane Sonko, a été péremptoire. en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le sire Ousmane Sonko. Est-ce que vous lui avez un traitement Je n'ai pris aucun acte médical, ni en termes de consultation, ni en termes d'analyse, encore moins en termes de traitement. Et donc, c'est toujours dans ce cadre que Dr Diallo, toujours membre de, de Souma Assistance a été entendu et lui aussi négatif. Il a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko. Quid de son évacuation, il a été effectivement évacué à la clinique Souma à la suite qui est au deuxième étage, mais aucun acte médical en termes de prescription ou de traitement n'a été prodigué à Ousmane Sonko. Et il nous a précisé qu'il aurait été préférable de vous adresser au docteur Nian, qui lui-même, depuis Medina Ngadbi où il se trouvait, rappelons-le, gère personnellement le patient Ousmane Sonko et défend à tout autre sachant de rentrer dans la suite où le sieur Ousmane Sonko a été hospitalisé. Docteur Cissé l'a réitéré, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès aux patients sur instruction du docteur Nian. Docteur aussi Diallo l'a précisé, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès à la clinique où était hospitalisé le sieur Ousmane Sonko sur instruction du docteur Nian. Et sur ce coup, l'enquête s'est orientée vers euh, docteur Aminata Françoise Bangola, qui était de permanence le jour de l'arrivée de Ousmane Sonko à la clinique. Même réponse. Déjà, Dr Bagola euh, n'est pas habilité à exercer parce qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre des médecins, quoiqu'elle a soutenu sa thèse. Et euh, quoiqu'elle a soutenu sa thèse, et interrogée sur son inscription sur le tableau de l'ordre des médecins, elle a précisé qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre sur le tableau de l'ordre des médecins, donc passible de poursuite pour exercice illégal de la médecine. Et là, M. le procureur de la République, fort opportunément, vient de m'apprendre que l'ordre des médecins a inscrit le docteur Aminata Françoise Bangoula sur le tableau de l'ordre au titre de l'année 2023 et lui leur a demandé le numéro d'inscription. On vient ensemble de tomber sur l'information. Mais il est clair, avéré et constant qu'au moment où l'enquête a été dirigée, ce docteur Aminata Françoise Bangoula n'était pas inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins. Donc vous constatez avec moi qu'on vient d'apprendre l'information on appréciera. Et tous ces médecins, même le docteur Nian, était unanime à nous dire qu'on ne pouvait pas l'approcher parce que le patient Ousmane Soko était suivi par un groupe de spécialistes. Euh, en toute opinion de notre traité, L'enquête s'est orientée vers Madame Mam Awandoui, qui est docteur et qui est membre de la commission médicale du parti dit Pasteur. Il serait passé à deux reprises à la clinique pour voir le patient Ousmane Sonko. Et cette dernière entendue nous a laissé dire, entendre plutôt, qu'elle est certes médecin, qu'elle est certes inscrite sur le tableau de l'ordre des médecins, qu'elle est certes membre de la commission médicale du parti PASTEF, mais elle n'a posé aucun acte médical sur le patient Ousmane Sonko. Tout au plus, en fonction des situations, elle s'avère à prêter main forte sur les éventuels blessés et même les éventuels malades qui seraient leurs militants et son office se résume comme tel. Interrogée sur les raisons de sa présence à la clinique, elle a déclaré Je suis venu voir Ousmane Sonko, pas en tant que médecin traitant, mais en, pas tant que membre du parti PASTEF. mon statut de médecin a permis de me faciliter l'accès à sa suite au deuxième étage pour le consulter. Et donc, sous ce rapport, euh, l'enquête a évolué pour identifier enfin les spécialistes qui, sur le plan du traitement médical, prenaient en charge Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'on en a identifié le docteur Boulos, le docteur Cissé, dont j'ai fait référence tout à l'heure, le docteur bulos le docteur Sissé et le docteur Ngom, entendus sur ses prestations sur le patient Ousmane Sonko, le docteur Ngom, médecin généraliste spécialisé en ophtalmologie et maladies tropicales, a déclaré avoir successivement quatre fois de suite examiner le ciel Ousmane Sonko les 16, 17, 18 mars et un autre jour qui ne serait précisé. À la question de savoir de quelle pathologie souffrirait Ousmane Sonko, parce qu'on est en train de mener pour des faits tentatives d'assassinat, Le docteur Ngom nous oppose que le secret médical ne lui permet pas de nous dire de quoi souffrait le sire Ousmane Sonko. À la question de savoir quelle prescription vous lui avez prodiguée par rapport à cette pathologie, le docteur Ngom opposa aux enquêteurs une nette catégorie pour leur dire le secret médical me défend de vous dire la prescription dont il a eu droit au nom du serment d'Hippocrate. Toujours sous ce rapport, inviter à offrir sa collaboration et de le préciser l'état de santé global du sur Ousmane Soko en relation avec les faits objets de l'enquête, à savoir une tentative d'assassinat, le docteur Ngom leur a dit aux enquêteurs, écoutez, c'est tout sujet à déclarer, je n'ai aucun renseignement à la limite à vous donner. À la question de savoir si est-ce qu'un certificat médical lui a été délivré et le cas échéant, pour quelle pathologie, le docteur Gom a renseigné aux enquêteurs qu'il ne saurait répondre à cette question parce que le certificat médical est délivré à la demande du patient et c'est à lui seul qui est censé en connaître le contenu. Il faut toujours préciser que est dans le cadre d'une enquête sur des faits d'une tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko et dont des rumeurs persistantes et insistantes ont fait état à ce que du lieu qui versé, préjudiciable à sa santé, ou un produit lui a été administré par voie nasale. Et donc, là aussi, c'était le blocus total. Parmi ces spécialistes, on peut aussi euh, citer le docteur Boulos. qui a affirmé être parti, faire partie plutôt des spécialistes qui ont ausculté le sire Ousmane Sonko. Il est généraliste, médecin généraliste et diplômé spécialisé en échographie. Et sa spécialité, c'est le suivi de grossesse, de prostate, de, de problèmes cardiaques et de problèmes de foie. Lui entendu a déclaré que à la date du 21 mars 2023 à à la demande du docteur Sissé, il est venu consulter le sieur Ousmane Sonko et déclare être le médecin personnel de ce dernier depuis 2009. Et au-delà du sieur Ousmane Sonko d'ailleurs, il a renseigné qu'il est leur médecin de famille pour avoir prodigué des soins de temps en temps à la, à la maman de ce dernier. De quoi souffre Ousmane Sonko Le docteur Boulos nous dit, secret médical, le secret lui défend de révéler les pathologies qu'il a relevées sur le patient. Est-ce qu'un traitement lui a été prodigué Le docteur Boulos aussi nous renseigne que la nature du traitement médical prodigué à son patient relève du secret médical. Est-ce qu'un certificat médical lui a été prescrit, le cas échéant, pour quelle pathologie Et là, il nous renseigne qu'un certificat médical d'une incapacité totale temporaire de jours a été prescrit au sieur Ousmane Sonko à la date du 21 mars jour de la consultation, et à sa demande. Quelle pathologie Quel motif d'incapacité avez-vous évoqué à la base de ce certificat médical Aurait-il eu des problèmes de prostate Aurait-il eu des problèmes cardiaques Aurait-il eu des problèmes de foi Le reste des questions d'échographie et de suivi de grossesse. Il a dit, je ne peux pas me renseigner, le secret médical me le défend. voilà un tout petit peu ce que l'enquête a pu tirer de l'audition des trois médecins, docteur Bouloche, docteur Ngom, docteur Sissé sur le patient Ousmane Sonko, docteur Ngom étant ophtalmologue, docteur Bouloche étant échographe et le docteur Sissé étant médecin généraliste. Donc devant ce, devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de se présumer victime de tentative d'assassinat, la clinique a été invitée à nous renseigner sur son dossier médical. Et c'est sous ce rapport qu'après moult altermoiements et euh, conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, une perquisition a été effectué par les enquêteurs de la structure urbaine dans les locaux du, de Assistance et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance dans les limites du secret du dossier médical du sieur Ousmane Sonko. Et ce dossier médical porte le numéro 2395 et qu'il mentionne que le sire Ousmane Sonko est entré à la clinique le 16 mars 2023 et en est le 21 mars 2023. Espérant pouvoir exploiter des éléments pertinents sur son dossier médical relativement à des blessures relativement euh, comment, en tout cas relativement à toute pathologie ou tout signe pouvant renseigner sur euh, les de tentative d'assassinat objet de la, de la procédure. Le dossier médical fait référence à de l'asthme. Le dossier médical fait référence il fait référence à de l'asthme. Et donc, euh, sur l'intitulé, et dans ce dossier médical, il est à relever que le seul élément constitutif du dossier sur lequel les enquêteurs s'étaient déportés pour se renseigner sur l'état de santé ou la condition physique du sur Ousmane Sonko, parce que rappelons-le, l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat, soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko, le est entré en clinique le 16 mars et est sorti le 21 mars. Et donc, je disais tantôt que euh, son dossier médical, compulsé par les enquêteurs, recelait un seul élément de dossier, du 21 mars 2023 portant son nom et sous l'enseigne Soins Assistance. Et sur cette facture, rassurez-vous, je ne viole pas le secret médical comme nous l'ont opposé les médecins. Il est mentionné désignation. Hôtellerie, chambre catégorie CH1, prix unitaire 100 000 francs. Quantité, nombre de nuitées 6. prix total 600 000. Je vous lis, Il est aussi mentionné actes médicaux. Et sous ce registre, nébulisation 10 000 francs. francs, prix total. Il est aussi mentionné consultation ophtalmologique. Rappelons-nous que le docteur Ngom est un ophtalmologue Consultation ophtalmologique, 15 000 francs. 15 000 francs. Montant et total. Il est mentionné visite médicale de docteur Boulogne, qui est un échographe. Visite médicale de docteur Boulogne, 25 000 francs. Donc, prix total, 25 000 francs. J'espère que je ne trompe pas. Je mets là. C'est ça Alors, ensuite, il un rubrique qu'on a, intitulé Unité mobile de soins. Et sur ce rubrique toujours, dont je comprends pas trop euh, l'intitulé d'ailleurs, n'étant pas spécialiste de la médecine, 40 000 francs. Prix total francs. Il un autre rubrique honoraire médecin, honoraire docteur Ngom, ophtalmologiste

faisant état d'administration de substances toxiques ou d'atteinte à son intégrité physique, mais le constatez devant nous, de 890 000, il y a 600 000 francs de frais de chambre, il a au total 25 000 francs de frais de consultation Donc devant cet état de fait, la piste de la tentative d'assassinat n'a pas pu avoir du corps médical des éléments pertinents pouvant nous renseigner sur sa réalité ou pas.